Serigne Cheikh ne dañu wax ni comme guddi ajjuma la te jumaa dafa war suba ñu dalal gan ñi fi nekk rek ñu nuyu leen ziyaar leen kilifa yu tedd yi ñu bokkal jataay bi jiital ci sunu xalifa cheikh seydi aboubacar ñaan yàlla yokk wéram ak rakkam yi topp ci moom di seydil xaaji malik seyda sëriñ babacar si abdou cheikh alxaaji mansuur ak mboolem ñu topp ci ñoom nee nuyu suñu soppe suñu rak Cheikh Seyd Mouhamadul Moustapha Al di ko ñaanal wér ak fan wu gudd nuyu kilifa yi mu jot bokkal jataay bu tedd bi nee suñu mbokk suñu jaam bi suñu lépp sëriñ kër Si Siise ñu ngi koy nuyu di ko jox wàccuwaayam di nuyu cheikh mouhamadunil habib si borom daara ji sunu rak kon fa tabarakallahu ñu ngi koy nuyu bu baax a baax ñuy suñu njaboot gu tedd gi toog ak ñun di sëriñ siidi ahmad si al amin sëriñ Babacar si bu Cheikh Hadj si aminta ak rakkam yu tedd yi mu toogal nee nuyu daar ji yépp rek nuyu suñu préfet alxaaji Mouhamad Gueye nuyu monsieur le maire le député maire Demba Diop si nee nuy adjoint au préfet monsieur Thiam ak kilifa yi fi bokk daje yépp nee di leen ziyaar ci guddi ajjuma ji tombeek guddi màggal juddu yont yàlla muhammad sallallahu alayhi fa tabaarakallahu di sant yàlla bu baax a baax waaye di santit ki nu may lii muy cheikh sayidil xaaji malik radiallahu anhu dañu wax ni bu lëg lekkee aloom na ko gërëme coy te ndax bu dul woon coy kenn du jot ci aloom léegi rek bi ñu toogee dama ni ñun ñëpp ndekete ay saaba lañu asxaabu rasul képp kuy taalibe cheikh te dëggu ca lañ la jox mën nga waat ni asxaabu rasul nga ñun ñëpp saaba yonent bi lañ هم الكرام وأصحاب الرسول وأرباب القبول وأهل الضعف والنور شيخ تيجان هم الكرام وأصحاب الرسول وأرباب القبل وأهل الضعف والنور góor gi ne humul kiraamu wa ashaab rasuli wa arbabul qabli wa ahlu dixfi wan nuur loxo ca kaw alhamdulillahi lama xasana karama hadil maathir fi sirrin wa maxzuni منفم ياتي ساحي فاقت في طريقتنا فهي المنية في هذاك مأمون برجنا تقبل الله رب الناس خليل وبينا تقبل الله ربنا سي دعوتنا تقبل الله ربنا سي دعوتنا مما نحب به امين بجاه ياسين ارجنا بجاه ياسين امين بجاه ياسين سمامنا yasin amin bi jaahi yasin gorgine bi jaahi yasin amin bi jaahi yasin way wi kay hadi min muridi abi faydil ilahi gorge baax axiltu góor gi ne ko nas nas bu leen jàngin ba ca kanam jëlam innal qasidata hadi min muridi abi faydil ilahi góor ge yaru axiluni munihumul kiramu wa ashabu rasuli wa arbabul qabli أهل الضعف والنور ne lii rek jar na bokk ci tariqa bi yàlla dafa wax ci alquran alkarim yaa ayuha nnaasu inna xalaqnaakum min dakarin wa unthan wa jaalnaakum shuuban wa qabaila li taarafu inna akramakum inda allahi atqakum loolu la yàlla wax seen maam ju baax ji cheikh seydi abou bakar si di melal ñooñ tariqa bi mu ni humul kiram kon kay yàlla moo ni inna akramakum ki gën a tedd ci yéen indallaay atqaakum mooy ki takkoo ragal yàlla waaye yow miy lazim yore tariqa cheikh cheikh Seydi Aboubacar di la melal ni yow yaa bokk ci humul kiraamu ña yàlla doon wax inna akramakum yéen day waay hum yéen alkiraamu ñu ni déet waay mu ni déedéet wa asxaabu rasul ñu ni waay mu ni wa arbaabul qabul yéenay way nangu ñaan yi yéenay ahlu difi wan nuuni jarul mu koy giñ lu mu wax Seydi la Hadji Malick ànd ci lu Seydi El Hadji Malick ànd cheikh ànd ci lu cheikh ànd maamam ànd na ci lu maamam ànd yàlla ànd na ci lu tax fala fala tara ahadan min ahli abadan illa wasimahu fi husnin wa tazyin ifani qutbul wujudi alladhi

yàlla ne yàlla fayal na sunu mag ñu baax ñi fala tara ahadan ci ñoon cheikh min ahlihi abadan illa wasimaahu fi xusnin wa tazyiini muhammadun rasulullahi walladina macahu ashiddaau ala alkuffaari ruhamaau baynahum taraahum rukkaan sujjadan yabtaxuuna fadlan min allahi wa ridwanan siimeehum fii wujuhihim min nasari sujud boo ko deful doo ko am maa la sopp maa la bëgg maa la gëm maa la wóol yam fa rek du tax nga am dara وليس نفع وليس نفع على حب بلا عمل وتابعا سنة المختار تغتنم على نبي والي أجمعين سلام ربنا دائما خليفة بسمامنا وليس نفع على حب بلا عمل وتابعا سنة المختار تختم مدننا على نبي وليم أجمعين سلام ربنا دائما عام سري شيخ سمامنا وليس نفع على حب بلا عمل وتابعا سنة المختار تغتني ne garanti yi bari na lool de ne bari na lool waaye boo ko deful doo ca am dara promotion mën naa am nga jënd benn carte ñu ni la junni lay jar waaye tey boo ko jëndee fukki junni la lay dikke moo boo amul njëg doo bokk ci promotion lan mooy njëg gi laazim loolu garanti la laazim la waazima hoo لبيا من المنافع في الدنيا وأخرى لفان مزاياه بل دار زواياه عمت مزاياه بل دار زواياه ترجين لازم لوازم هو تكفيلي لبها دين منافعي في دنيا وأخرى نيفا تبارك الله ñu ngi ñaanal ñi fi nekk ñëpp ñu ngi ñaan ñi fi nekk ñépp ñu wax imaam mu joxe dog ñu yéene ko mag ñu tedd ñooñu sëñ Moustapha cin bu naree neex bu baxee xeeñ xeeñ na de ne ñun dañ ñu garanti coow yéeg yi sax sawaruñ cee bokk ne danga ngaa ni yi xew yëpp dañ koy dégg nii rek dañoo nekk ci biir ku ñu neexul doo dugg ci biir ki nekk ci biti nag bu ko neexee di yuuxu bu ko neexee di yuuxu ndax ñàkk mën a duggam ci biir yuuxu rekk la dese fokk mu yuuxu ba xotteel dañuy beral cant rekk nag suñu rakk ju tedd ji di alaaji Abdul Aziz Aale Njaay alxaaji abdoulaye Ndiaye ngalgu fokk ñu beral leen cant nag ndax démb mustafaa Moustapha ñu na ko xam nga ki volontaire ku nekk di xalaat kenn mooy jële li ci biir teen bi te li ci biir teen bi bu génnul njariñu ñépp ca la ñu nekk te kenn ku nekk di seet nooy dugge ka futteeku dugg fexe ba génn ko ñépp jariñoo ko ñépp a ko war a delloo njukkal la mooy ñoom li ñu def fii ci kër gi esplanade bi ku ko dajal ci ay marbre de première qualité mur bi nga dajal ko première qualité boo duggee sa xol dal sa xol sedd bala ngay jàkkaarloog góor gu tëdd gi foofu la yàlla di raxase sa xol ñaaw ñaaw yi lëndëm lëndëm yi tilim tilim yi dafay dàqu ndax li nga daj yéene woon ko ñu defal la ko xol bu féex boobu moom ngay ziyaara cheikh seydi aboubacar bu ko defee soo ñaanul sax xol bu sedd boobu yàlla dëgg ci nangu sa ziyaar faj sa aajo yàlla na yàlla fay leen te it allahu ko yabaroo leen ci de ku bëgg li am fokk mu roy leen ci li di def de du nag bëgg koo def rek def ko de cër lay nekk ci yow de nga man koo def kon Abdul Aziz Ale Njaay ak alxaaji Abdoulaye Njaay ngalgu ak Maxtaar Njaay al amin man de ñetti njaayeen yii <laughs> yàlla nañu yàgg sant njaay fa tabaarakallahu ñu ngi siyaar ñëpp ñu ngi balu xaq ñëpp di jégglu bu baax xol bu féex la rek moo nu yóbbe lii rek nee ñu ñaan imaam mu joxe dog ñu ñaanal Seydil Hadji malik ak njaboot gi ak mag ñu baax ñëpp ñëpp ak mag ñi ci aju woon te jiitu ci yàlla yokk seen leer imam yaa fi ne de bismillah